Euh, c'est vrai buñ ko il euh, y a un problème de coordination qui se pose donc c'est mom mo wara jël matuwaayam aussi donc tok communiquer euh xamni jox geud responsable yo xamné euh ñu ngi fofu, ils ont mouillé le maillot depuis yàgg fa depuis 2009 donc il faut ñooñu mëno def dara sans ñom. donc euh, lool lañ koy appeler ñu mom ak. képp koo xam ne jox nañ ko domb tànk si biir parti bi que ñu bàyyi di uti dugg si dans les réseaux di wax nañu dàq diw nañu dàq diw non man je ne suis pas pour. Euh, ci destitution bi yow and nga ci wala àndoo ci. man lu ma mën a wax mooy assemblée générale bu ma teew démb wax tey ni wuñu destitution mais dama jàpp ne sama gis-gis bu gàtt tey su fekkente ne nit daf la dénk dara comme ni ma ko waxee pour nga doxalal ko parteem mu yëngatu dama yaakaar ne par rapport à une résolution bo xamantene euh à l'issue de l'assemblée générale bi nga xamantene euh, coordination APR def euh, sans le coordonnateur d'ailleurs à Ba donc euh, résolution est dañ à dañu destituer Amadou hein, donc de son poste de coordonnateur parti lu koy activité journaliste depuis élection présidentielle ba activité organisée au niveau des Parcelles Assainies responsable politique APR la depuis 2009 nous avons yëngatu des Parcelles Assainies amul unité pour ñaax askan pour faire président de la république pour Sénégal euh, mais musuma Fateliku, fou le coordonnateur Amadou Ba en dehors des élections présidentielles, législatives, wax locales, pour élection responsable nous ñu nous ñu dégager une feuille de route ni nii la ñuy parti bi ni la ñuy yënkalee parti bi ni la ñuy def pour gën gis gisou président de la République loolu amul gisuma ko musuma ko teewee man musuma teewee laa wax fi nga xam ne ne coordination APR parcelle Assainies depuis Amadou Ba ñëw fa ba léegi musuma teewee fo xamné ne en dehors élection fu mu toogee wax né ah ñun de plan d'action bi lay proposé ni lañuy def pour défendre euh, gis-gisu président ni la ñuy défendre euh, euh, def pour fësal li nga xamné président de la république bu mu koy def. donc c'est par la suite l'année, man bien que ken invité wu ma ci assemblée générale mais en tant que responsable ñuy wax affaire appareil bien que ñepp xam nañ je suis avec Amadou Ba donc ma ñëw assister rencontre bi jël fa parole mais yoon dañuy plus que amourba ki nga xamantene mom comme coordonnateur moko mëna c'est pas une assemblée générale de quelques personnes qui ñoko mëna donc euh, voilà di di di gérer situation nit ñi nit donc man et que euh,

yàgg nañu di programme ay assemblée générale te am yàgg nañ di def programme ay conférence de presse te am mais dañu war a xool lu tax yooyu yëpp amul woon c'est parce que amna ben robinet bu ubbeeku ko won bo ne dañ ko tej motax ñuy yuxu instant yi nii il faut que ça cesse. je personnellement euh, man je ne suis pas d'accord pour des questions de destitution té xamna ni c'est pas le débat aujourd'hui qui anime les Parcelles Assainies maa ngi dëkk unité 25 quel que soit en tout cas organisation parti bi les gens doivent travailler dañu war a pour que au moins waa parcelle waay du sentir ni ki APR mu ngi dund seen wet donc. mbir bi fu muy yegg instance parti bi ñoo ciy décider mais dama bëgg wax ne rek militant bu ne ak responsable bu ne mun nañ am tu es libre de joxe sa gis-gis tey rien n'empêche am na ñoo xam ne ni depuis longtemps ils ne considèrent plus Amadou Ba comme leur coordinateur parce que wu leen associé wu leen ci dara li nga xam ne ne parti bi loolu lay dundee loolu c'est leur liberté et c'est leur choix euh, c'est leur vision boo xam ne war nga ko respecter mais lu ñu mën a wax ñun man en tant que cadre je me conforme aux directives de mon leader de parti le président Macky ou li instance au parti décide que loolu laay conformer jusqu'à jusqu'à nouvel ordre. Ça a été monté de toutes pièces par non par le ministre d'État mais Ndiaye à son entourage donc c'est évident j'ai assisté à la rencontre j'ai pris la parole li ma leen wax nii fa jeex na donc euh, loolu dal defe naa moom moo amoon ci assemblée générale bi ñu génn restitution rek euh, euh, du moins résolution ñu ne résolution bi ñaari ñoo génn c'est parce que quelque part dafa am loo xamante ne dëggoowuñ ko seen biir ñoom ñu initier assemblée générale bi ñii dañoo jaar fële ñii jaar fële donc loolu la de mais lépp ci ñoom la lépp nag ci ñoom la donc kan moo wax ne dañuy discuter kan moo waxul dañuy discuter loolu ñoom la ñoom i caag la donc lolu duma ci quoi mais dal lolu dal mom xamna né qui kii c'est le président de la République Macky Nous avons wax par rapport à cette actualité inviter tous les camarades tous les responsables à plus d'unité à plus de cohésion dans l'action que nous menons pour mieux cela encore bu baax baax yi nga xamné président def na ko ndaxte président lu muy def bëri na soo xoolee programme couverture maladie universelle bourse de sécurité familiale yi boo xoolee les promoville pavage yu parcelle Assainies ñu bëri dañuy foog ne ne maire bee ko def mais c'est un programme de l'État du président de la République mooy promoville euh, boo xoolee euh, PUDC ñëw na ci kaw bi régler problème d'énergie problème euh, des pistes de production kon yooyu yu am solo yoo xam ne ni ñun war nañu ko waxtaanee tey lan mooy dundal parti mooy c'est très clair le ministre Amadou n'est plus coordonnateur coordonnateur dañ koy nommé pour élection bu élection jeexee hein? coordonnateur amatul kon ce qui veut dire que ni n'est plus coordonnateur Moi, or le président de la République moo nommé bu ko nommé xanaa moom moo koy dindiwaat n'est ñëpp nay xam nañ ne nommé. Parcelles Assainies kay Amadou Ba la mais tey jii mu ñëw wax c'est parce que am lu mu mais bon on les attend de pied ferme. est responsable militant autour d'un dialogue un vaste rassemblement ñu tok waxtan wax lu que aussi mom le coordonnateur parce que man dama jusqu'à preuve du contraire c'est lui le coordonnateur de euh, comment de la paire au niveau des Parcelles donc d'autant plus que président moko ko donc je crois que c'est pas comment à quelques personnes de décider nous de sa destitution je crois que le président ko xam si ak fayda bu ko dënkaane doyu la ko dok am na fulla bu doy nii pour mu woo ko destituer ko changer ko jox ko keneen ce euh, maa ngi woo ñëpp donc euh, ci retenue ak euh, waxtaan parce que lépp loo gis waxtaan la te waxtaan biir néeg dafa am aussi donc ñu bañ a toujours utiliser médias yi pour que vraiment ñu polluer atmosphère nu mu tëdd politique bi ku syndrome PDS bi bu ñu dal parce que euh, ku nek si waré dugg des calculs de positionnement et autres c'est pas bon